ñu waxee bande de filao xam ngeen ni que coow lañ fay dégg fan yi bari na aujourd'hui lan mooy situation bi. waaw situation bande de filao surtout particulièrement Guédiawaye Ndiarème Limamoulaye du ma dëkk. Mhm. problème bi foo ko natt rek weesu na si li nga xamante ni lu tegul ci yoon maanaam am na ay nit yoo xamante ni mun nañ leen tuddee ay malfaiteurs façon bu ne mën nga leen ko tuddee parce que dañoo ñëw fekk suufu jàng jël ko nangu ko si moom bëgg ko jariñoo ñu ngi jox leen un ñuy jox leen huit cent mille et quelques mètres carrés ñeneen ñi jël ko séddoo ko un hectare jël ko seddoo ko ñi jël cinq ñi jël six te loolu tax ko woon jug problème bi nag bi nga xam ne moo ci indi muy wàllu collectif bi ñun ay ay ay entrepreneur la ñuy dëkk géejawaay bëri na man ak sama morom ak ñeneen ak nit ñoo xam ne dañ doon bàyyi jël seen alal dugal ko ci commune bi mooy ki ñuy wax maire di Sey yàlla ko yàlla xaare na mhm. donc jóge na fi depuis deux mille vingt et moom moo amoon ay projets yoo xam ne da ku mel na man mu woo ma. ñoom mhm. dama bëgg a tabax maison de la femme maison des handicapés logement sage-femme mais aw ma xaalis ma def Italie 18 ans ñëw war a investir mun ma toogal jàppale ma ci liggéey bi man ma jël sama alal tabaxal ko loolu yëpp. yow yaa ko tabaxal loolu man maa ko tabaxal loolu sama alalu bopp. beneen bi am na centre commercial bu ma koy tabaxal nii pareegul yàlla dogal mu wàcc ci diggante bi lim seq ak man la seq ñeneen ñu bëri am na ñoo xamante nii dañoo nekk étranger jël seen xaalis dugal ko si mu jaay leen mhm. parce que commune bi danoon am ay projet tabax na fa école tabax fa lu ne mais commune bi amuloon dara amuloon sax deux cent millions par amuloon doole mais bëgg na liggéey ay nit jël seen alal dugal ko mu ne dama leen di fay ay terrain ñuy signé ay avenant mu jox ay terrain yàlla dogal ñuy dem ba 2021 mu wàcc ci liggéey président Macky Sall mu baax mi ne comme kii dafa jël alal lépp dugal ko si njaari million mu laay lotissement bi ñuy def si mhm. PID bi danañ jël 3 hectares 500 jagleel ko ñi nga xamante ni amaloon na leen bor ñu fay leen ko donc loolu mooy problème bi 3 hectares 500 yi nag jamono maam booy jaaw la jamonoy maam booy jaaw jamonoy maam booy jaaw d'accord man mi bokkoon na si ñu mu recevoir ak collectif ak ñeneen mhm. ñun ñi si am nag 147 terrain la ñi nga xamante ni ñoo dugal seen alal foofu yëpp matul 40 personnes yi ñu jox yeneen 100 terrain yëpp dañ ko jël séddoo ko waa impôt domaine ak ñeneen kilifa yoo xamante ni tey ñu ngi fii si réew mi te amuñu woon dara mosuñu séq ak ba di te loolu. Mhm. ci jamonoy maam booy jaaw si jamonoy maam booy jaaw la. ok ñu ñun nag ñu créé benn collectif di xeex man mii seddoon nañ ma jox ma ñaar. plus de huit terrain la amoon parce que koo xamante ni dugal nga si commune plus de deux cent quelques millions ñu jox la trois terrain kooku mooy yow jotoo mhm. mais man sama cas sax booy seet am xëy na mun naa ne sax sama cas garaaw mhm. parce que di def si commune Ndiarème Limamoulaye mais li ñu nanguwut ay nit yoo xamante ay fonctionnaire luñ di liggéey si état état di leen fay ñu bëgg a retourner jël terrain yooyu ñoom jël ko moom ko yeneen nit yoo xamante dañoo tey ñu joxoon leen ay notification ñun ñëpp dañoo perte. Mhm. amatuñ dara. Mhm. loolu nag liñ ne ñu xeex duñ ko bàyyi mukk fi ñu suñu alal. Mhm. mu jaruñu nag suñu bakkan moo tax ñuy xeex. ba yàlla dogal la ñuy xeex ba toog ak moom Mamadou Gueye mu jox ñu lii nañu def ñuy activité mooy jiite jëlee nañ ko fa. donc recevoir nañu trois fois wala quatre fois yoo xam ne toog nañ ak moom mais indiwul benn solution moom mun naa ne sama mbooy jaaw moo ko tane parce que lu gàtt gàtt si bu dee la jox nañu quarante mais moom ba mu fi toogee ñu ñu déclaré ci huit cent et quelques hectares nanguwuñ soo jox dara. lii la ñu bàyyil ba muy dem. ñu ngi léegi. Euh, yaa ngi wax sànq ba léegi ay malfaiteurs malfaiteurs ñooñu ñan lañ. mooy ñu nekk ci état bi rek weesu wu leen. ci jamono yéen am na ñoo leen ci ràññee ñoo leen bëri na si bëri na si liñ ci xam bëri na. ku ci mel ni. non xam nga mu ngi ma ñëw fii di tudd turu jàmm mu ne ma danga may déformé wala yooyu dañ see gaaw mais ñi nga xamante ay preuve yu noonu ñi nga xamante état bi ne jubal jub jubanti jubanti xaw ma jub jubal jubanti hmm. ñoon kay yaakaar naa ñoo war a gën a am preuve gën a leer parce que lépp képp koo xamante ni dañ la jox notification liste la boo xamante ñoom bu ñu demee impôt demee danañ xam ki ñu jox ak ku war ta jox am na ñoo xam mosuñoo séq bëri say dara hmm. kii liggéey impôt demee nga ne syndicat nga wala ngay liggéey yow ñu jox la impôt demee am nañ am nañ cinq hectares am nañ fa 4 hectares waa Cadastre. Mhm. ñooñu bu ñu leen joxee ba ñu retourner li nga xamante population Ndiarème Limamoulaye ñoo ko moom. Mhm. ñu retourner jëlaat ko loolu yaakaar naa yomb naa vérifier. Mhm. donc lii ma la wax nii lu wér la loo xamante lu fiable bu ñu demoon impôt demeen am na list ndax képp ku ñuy attribué di la jox notification sa liste sa tur mi ngi ci liste bi suñ ko bëggoon xam suba am nañ am nañ loo xamante ni buñ fa jaaree danañ xam ku ñu jox ak ku ñu li ci ëpp cent et quelques yi nañ ko jox ñooñu taxul loolu la jug ñëw taxoon a jug joxuñu lañ ko ñoo jël jaay ko jox ko ñeneen li ma la wax lu leer la ay preuve yu leer yu may indi la. d'accord léegi yow mi nga xamante ni da nga sekk ak maire bi nga xamante ni yàlla da ko fi jëlee. est-ce que am na ay preuve xam ne dafa wane ni que yow defal nga ko lii. waaw lépp xam nga nit moom buy liggéey si ay contrat ngay liggéey. man contrat laay laa yor ay contrat yu wóor yu fiable yoo xamante ni tey maire bi ko remplacé tey benn terrain bi ma la moom moom moo ko jox. d'accord ki ko remplacé actuellement mu gaañoo ki nga xam moo fa nekk ni actuellement maire. Mhm. moo ma ko jox. si Mame Boye Diao ñu signé ko jox ma ko na ma leneen li comme jotaguñ ko nañ xeex kon na xeex mais man sama cas taxul ma ñëw mais dama gis ay yoo xam ne dañoo jaay seen kër mhm. ay association handicapé jëloon deux cent millions joxe ko mhm. ñooñu amuñu dara te ñoo xam leen fay jox ñoo xamante ni dem nañ ci télé bi jooy nañ def nañ lu ne ay nit nangu ko jëlaat ko jaay ko nga teg sa bët mhm. loolu yaakaar naa man moo ma gën a metti parce que man mi may wax yow am naa fu ma dëkk am naa ay kër yu ma luyee Géejawaay bokkoon naa si ñu doon xëccoo mairie bi kon man sama cas garaawul maire ko joxe woon tey bu doon defee yem jàpp naa ne man am naa satisfaction parce que lu tax mooy tabax na maison de la femme ay ay ay jigéen jël ko équipé ko. Mhm. maison des handicapés tey boo demoon jël sa caméra dama la koy wan mi ngi fonctionné. Mhm. ay handicapé jël ko moom ko mu may leen ko te loolu yëpp maa ko defal loo xam ne nit mën na ko vérifier. d'accord ok d'accord